président Macky Sall gannaaw bi mu discours à la nation le 11 mai 2020 Il a décidé de décidé woyefal conditions conditions état d'urgence Il a pris ay mesures te mesures mesure ñu ràññee ci benn muy ñu war a tijji euh, de culture te pour le virus bi euh, tasaaroo daf euh, parce que gens xam jumaay ak jàkka yi xam liés lieu de rassemblement la dañu de fay Le président Macky Sall décidé ñu euh, jël ay masque askan bi képp kuy dem si jumaa nga takk sa masque pour mën a protéger wu mais protéger également ñi nga xam ne ñoom ngay dendal te ku ne xam ne président Macky Sall euh, li ñoom nga xam ne protéger askan bi ak di ñor Sénégal yi rek moo ko ñor ci période bi contexte Covid 19 bi mu décidé jël masque yi distribuer ko gratuitement euh, aux populations mais notamment ci jàkka yi pour ku nekk mën am masque tey nag ñu recevoir moo recevoir fii le ministre de l' intérieur nga xam ne mooy le ministre du culte ñu remettre ko loowu téeméeri junni ay masque pour mu jox ko mu distribuer ko ci jàkkee ak jumaa ak lieu de culture